Ziguinchor lu fa xewoon balaa même événement yi pendant dix jours bu mu fa demee dañu barricade yoon yi loo xam ne mosuma ko am sama dëkk sama ma belle ville de Ziguinchor nga xam ni seen ville boo xam ne ñun fépp la ñuy dugg koñ bu nekk lañu la ñu dem mu ñëw gëmloo waa Ziguinchor que moom mooy soxali Ziguinchor tey mu ñëw indi xale yi si xeex si barricader les rues rues yëpp mu dagg ko dagg ko c'est-à-dire mu teg fa ay ay bant branche mu dagg ko taxaw booy bi teg table table ma ne nit boo si seen këram la ñuy jógee di dem foofu ñun ñu teg seen table di yor seen bic di bind waaye immatriculation temps euh, joxel 3000 nga jàll loolu moo xew joxel lan 3000 francs nga jàll maa ngi wax ak waa Ziguinchor xam nga xam nga man homme d'état la maa ngi wax di waa Ziguinchor ñu ngi may dëgg joxeen 3000 non yow waroo fi jaar foo foo jógee euh, kii kon naka la tudd sa décline ton identité ay xale yu am 16 ans 17 ans yor kii ni yor seen ay arm di di di taxaw loolu moo xewoon bu mu fa nekkoon Ziguinchor sama kër yu nekk Ziguinchor ñu attaqué ko deux fois bañ leen bañ si jàpp juróomi ndaw ñu yóbbu leen police loolu nag bu mu amee.